thank you aleykum wa rahmatulah sala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant man maa ngi tudd Maguette Pouy dëkk Waagu Ñaay 2 villa numéro 218 sam papa tudd Mamadou Seck Pouy mooy boroom kër gi sama yaay tudd Fat Diop kër gi nga xam ne moo am tey ji problème bi presque mën naa ne lii yeewoo ci kër gi ëpp na trente personnes te lépp ci njaboot gi la mbir mi nag dal nañu gëm nañu yàlla ñi ngi ànd ak suñu boroom mais li may jëkk jiital jaay doole la ñu jëkk def jaay doole lañu def ndax lu tax jaay doole problème bi ni mu situé woo man boo gisee ma ciy wax xëy na am na loo xam ne waxtaan naa ak sam papa ngi ci dëgg maa ngi ci fen problème bi du problème mu kër gi problème mu tool la du problème mu ñu ne famille ak li xew mooy dafa am tool boo xam ne bii suñu maam gu ñuy wax guy gay puy mi ngi dudd 1847 moo 67 moo fa nekkoon di bay di bay tool bi di ci dund di jël mbay mi di yóbbu gore di jaayi loolu yëpp sam laa ko déggee ba loolu yëpp paase am na koo xam ne kii paa bi moo ko jur moo fa nekkoon chef de village. ñu koy wax mboor Puy bay na ca tool boobu mi ngi gaañu en deux mille lan deux mille deux un deux mille un te kooku bay na ca tool ba kon nag tey jii ak it ku ñuy wax Idrissa Puy ñoo ñëpp mooy neuf famille yi nga xam ne Gouye Gui Puy moo leen jur ka jëkkoon ca tool ba ne fa xam nga tey jii ñun amuñu droit jaay suuf ñun tool boobu xam la lañ ci am. peine et soin ndax diplôme moo ko bëggoon bi ko diplôme bëggee ñu xam ne ñun tool bi amuñu droit jaay suuf diplôme dem domaine lu mu interroger ordina euh, ordinateur bi ñu gis ci ne tool bi waa kër Momar Pouy ñoo ko moom ko koy taaw paa bi ñu ne seede yàlla ñu ne léegi kon comme noonu la demee tool bi defatuñ ci dara diplôme bëgg na ko diplôme du jënd loo xam ne lii day sànni xaalisam diplôme jënd jël jël tool bi daa du ñu dox ndàmpaay. ndàmpaay bi ñaar la woon. ndàmpaay bi quarante. quarante millions la woon. neuf familles seddoo ko. sept yaa ngi mbaaw deux yaa ngi waagu ñaay. sept familles yooyu mooy paa bi ñu bëgg nangu këram tey. te ñu nangu ko ba pare sax nangu nañ ko parce que génne nañu. paa bi lan moo tax ñu bëgg nangu këram. li mu bokk ci biir séddoo bi. séddoo bi ñaata la ci am moom. 4 millions bi ñu ko joxoon a ngi nii en 2000 lan. 2007 2007 la tool bi jar. 2006 2006 2006 la tool bi jar. encaissé wul chèque paa bi dafa demoon dafa demoon jël wala dañ ko. déedéet dañ koo sédd dañ koo sedd comme ni ngi séddee ñëpp encaissé wul chèque retiré wul chèque dañ koo sedd comme ni ñu séddee ñëpp. waaye nag ki ki jël ki jël ki jël tool bi nag bëgg ko def moomeel nee na. baayam boo xam ne mu ngi tudd am Amdi Moustapha Niang la papaam tudd ki nga xam ne tey jii moo dox mbir mi di ko di di songu kër gi papa Ndiaga Niang lañ koy wax waaw nee na gouverneur moo leen mayoon foofu tool boobu 87 85 la leen may tool bi loolu la leen wax loolu la wax songu sama papa dem ak moom tribunal di yéeg di wàcc boobu góor gaa ngi dund. bi nga xamee ni song na diplôme ba pare diplôme gagné ko ci paa bi la tourné songu. lan bu nekkoon moom ak loolu moo ñu jaaxal ñun ba tey lii am léppam dañ ko wax mbiri paa lépp ndax jabar la am ci koñ bi jabaram jooju moo xam paa bi dëkk ñun ñun ñun lépp daf ñoo bett wax ko lépp paa bi dégg nga am na benn xaritam boo xam ne bi tey ñu ci dëgg ñu ngi ci fen ndeke kooku du sama xaritu papa noonam la ñëw ci paa bi àbb ko kayitu tool bi ndeke boobu waa la koy joxe pré baay bi dam jox ko waa ji waa ji monte ay kayitam mooy papa Njaga Ñang moom monte ay kayitam dem lijjanti lépp ba am biir domaine ak kadas ak urbanisme fa la jaar ba am kayit yi mu am tey ba sukkandiku mën koo jox ay avocat am ñu sukkandiku ci loolu dégg nga si appel bi ñu njëkk def paa ko gagné mi ci dëgg ñu ngi ci fenn paa bee gagné premier appel bi ñu njëkk def waaye nag ku la ëpp doole bu la dékkoo dalay daan waaye nag am na loo xam ne lii yaakaaruñ ne woon lii dina xew senegal léegi bi ñuy wane mbir mi af def na 14 ans 14 ans waa ji mi ngi daw ci kër gi pexe bu ne dugg na ko pour nangu kër gi ba tey. pexe bu ne waa ji njaga ñan dugg na fa pour nangu suñu kër gi man man wax naa 2S plateau mbayang dem nañu seenti euh, tës dégg nga dem nañu Walfadjri def fa deux plateau ñu nëbbatu wuñu gis nga suñu kër gi bu ñu lewul woon bu doon sam papa trian la wala mu déposer banque kër kayitu këram gii kon duñ ko duñ ci jox dara suñu kayitu kër a ni nii titre foncier baa ngi nii lépp lawuñ ko taylewuñu ko dañoo daan doole wut seen ay avocat dugg génn pour mën a jël suñu kër gii. léegi bu nekkee ne paa bi 4 millions rek waaw ñeneen na ko bokkoon. loolu lañ jaaxal. léegi lan moo tax mu bàyyi kër yëpp ñëw kër gi. parce que dafa xam ne kër gi moo parce que dafa xam ne kër gi am valeur. te jabaram renseigné na ko ci kër gi xam na ci lépp. dëkku ci kër gi jabaram a nga nee ca koñ ba ci biir ah, bi la dëkk ma nga nee étage ma nga nee Fatou Gueye la tudd. waaw. Faatu gayna la tudd moo jaay paa bi jëkkëram moo jaay paa bi jëkkëram paa bi fay lebul euh, saraxul ñaanul abul sàccul dañ koo jaay doole te bi muy dund mi ngi koy dox waaw booy dund ngay dox lii ba dee sa kër ku ko moom lu du say héritier bi paa bi dee la xam ne ñun ñoo moom kër gi ca lañu daw domaine li di seen i pour mën a am suñu kër njaga ñang moo def lii xamuñu ko musuñoo toog ak moom musuñoo gis Ndiaga Niang musuñoo toog ak moom gis jabar euh, Ndiaga Niang musuñoo gis famille Ndiaga jabaram ji mu amal amal moom dara dig na ko ci alalu kër gi dig na ko ci alalu kër gi moo ko ngemb moo ko doon wutal ay avocat moo ko doon wutal ay juge lépp moo ko ko léegi nag li ñuy wax état bi mooy lii injustice la injustice la dañ jaay doole dañoo jaay doole te gis nga dossier bii buñ ko buñ ñu yàlla mayoon ba ñu tegaat dossier bii wallaahi Azim Ndiaga Niang day day tëdd kaso jabaram tëdd kaso. démb ba te amuñu fu ñu jëm sam papa da doon wax ne lii si seen patrimoine la na ngeen ko sàmm vingt cinq ans à l'âge de vingt cinq ans la jënd këram gi ca la sieur la doon liggéeyee. Mamadou Mamadou ah, du Karim Pouy ba muy liggéey le séer boobu Sonacos amagul le séer la tuddoon le séer la tuddoon ñun nag nëbb wuñu làq wuñu dañoo nekk suñu dëgg ñu jaay ñu doole bëgg nangu suñu kër te nangu nañ ko ndax génne nañ waaye nag dañoo demul fenn lii dañoo bëgg Macky Sall jug ci lii li xew tribunal dafa salte dafa salte di sàcc këy këyitu këru jàmbur yi di falsifier këyitu këru jàmbur yi dafa war a doy ci Sénégal dafa yomb ñaga ñang bi mooy ñeenti kër mu def ko te dañ ci am preuve ah. parce que dañ ñoo woo ay avocat ñu dem ñu tàllal dossier bi avocat yi ne kii ngeen amal affaire ñu ne waa mu ne njaga ñang bu ngeen dugalee seen seen kër mu ngeen ñàkk ko ndax lii mooy jikkoom lii liggéeyam la liggéeyam la njaga ñang sàcc la tur yaa la maa ngi tudd Mbor Pouy man si doomu paa bi laa bokk paa bi lu mu doon dox si dossier bi presque la moitié maag moom ñoo ko doon dox. waaw dossier bi lu ci xew litige la mun nañ ne litige la ak jaay doole li tax mun na la litige la ak jaay doole ana tool ba xew mbaaw loo xamante ne ku si ne quatre euh, huit familles yi xam nga neuf familles yi ñëpp a séddoo jël seen xaalis yow nga ne léegi yow da nga bëgg daan sama papa da ngay nangu këram. parce que nee nga moom moo gën a solvable parce que dañ leen ne dañ leen condamné solidairement moom Babacar Pouye ak parce que moom ay këyit la teg jaay ko mais moom attaqué na diplôme mënalul dara diplôme mu ñëw ñëw ñëw si ñun loolu mu ko fan. léegi li ñu jaaxal moom du ci euh, terrain ay tool la woon lan moo tax que nee na si jëm boppam bañ ko évaluer tool bi ak Ousmane Sarr bañ ko évaluer ça fait soixante-dix millions. léegi si biir 70 millions yi nee na dañuy def amende intérêt boo xam ne 31 millions la ñuy dugal muy 101 millions xam nga mu ne léegi kon ko léegi paa moo gën a solvable waa ji nekk na ci biir koñ bi depuis 2007 ba 2013 paa bi di décédé te ñun xamuñu ko mu ngi woon suñu biir jabar ji daala ñëw fii di jël ay renseignements du ñu infiltré di ko jox mu ngi tudd Papa Ndiaga Niang doomu Amdi Moustapha ñaa ak Fat Sis il paraît que am nañu ay ay ay parents yi nga xam ne ñu ngi Thiès. ci benn journal laa ko lire nii seen benn mbokk bu décédé ñu def seen parents yi kooku ne papa Ndiaga Niang famille xaw ma lan ak lan décédé intéressé moom ma ñaa jàll sama yoon ma daal jàll sama yoon papa Ndiaga Niang photo mi ngi nii sama portable ci benn kii laa ko jëlee euh, enquête laa ko jëlee muy wax naan ah, dafa am ay waay yu ma ameel di wax ay waxu kasaw kasaw yaa ngi dégg ci waxu kasaw kasaw yooyu man dégluwuma ko parce que escroc doo ko déglu léegi waaw tey yoon ñëw jël seen kër wala génne xam nga la moo xew lu xew ba xew mooy papa Ndiaga Niang ci jëm boppam moom dafa am ay complice daa am ay complice xam nga Sénégal day naan je suis un bon avocat la mooy un bon avocat ñu baal ma ci loolu xam nañu fu xam xam nañu fa ma a jëm xam nañ fa ma bëgg a jëm je suis un bon avocat yow dinaa la plaider pour nga gagné li nga war a gagné xam nañu tegoo ko ci yoon la mooy un bon avocat. ñu baal ma si terme boobu du ci egg mais ñoo borom xel yi ñuy liggéey xam nañ la may un bon avocat kon ko dafa am un bon avocat nañu dem yàlla dinañu àtteeg moom kooku mooy avocat bu mag bi Papa Ndiaga Niang nag escroc la dégg naa mu mooy koy def papam ci lu ma dëgg man ci lu ma dégg histoire papam intéressé wu ma sax mais ci lu ma dégg lii la daan liggéey carte carte xaalis la woon dégg naa da daan dégg naa dégg naa ñu ne carte carte xaalis dem dafa perte dem ba perte ba daanu ba daanu moom ku ñuy wax Ibrahima Ibrahima Koné gouverneur boobu ñuy wax Ibrahima Koné si jëm boppam ah nen yi moo leen may tool boobu 1985 te tool ñoom dégg naa il paraît que jamono jooju bu ñu la ko po bu ñu la ko mayee boo deful 6 mois dara perte nga waale 85 ba 2006 ñaata at la. te 2006 mi ngi fekk tool bi ñuy mi ngi fekk sama turandoo ci biir tool bi muy ngi bay non astafurlah Babacar Pouy bal bay na ci Babacar bu ndaw bay na ci même ku ñuy wax Sange bay na ci. Sanjay moom moom mooy jarbaatu paa bi la bay na ci mi ngi ci dëgg maa ngi ci Idrissa Pouye mooy taaw paa bi mu ak sama papa bu ñu ma tuddee man ci lañ daan bay sama papa 4 millions 800 la ci jot këyit gaa ngi nii 4 millions 800 la ci jot. bañ tey déglu ma 4 millions yi nga xam moom nga jotee la def néeg ba ci ginnaaw daf ñu woo man Babacar Paa Boy Maguli Youssou mi ngi ci dëgg maa ngi ci fen ay doomam ñu góor rek la woo nee leen ñëw leen ñu ñëw mu ne ku bëgg ma jox ko mu tukki xaalis baa ngi nii. boo leen ma tabax ki defar kër gi ci des bu egg fu mu egg ma yamale ko fa ci des eggal yi. paa booy paa booy paa booy. wax loolu ñun ñëpp ñu góor ñi ñu ne ko papa ñu ne ko ñu ne ko loo baax na tabaxal mu tabax ay doomam ñu nekk itali ne ko fu mu yem ñun ñoo koy eggale 4 millions 800 tabax na lii ah 4 millions 800 tabax na lii ba ñu tegee seen dil ba seen dil sotti am gën a gaan bu ñuy wax Jean Daniel Thiaw. ne moom moo bëgg a kër gi à trente cinq millions xam nga trente et un millions document yi dama ko yor woon xam nga mu dem ba xam ne que nekkul ci dëgg mu retiré wu. xam nga ba mu retiré wu ñu dem dem dem ba benn instant am na benn waaye léegi wallahi azim ak ajjuma gii may wax ak yow waa ji fii la taxaw sànq mu ne la moo xew ñu expliqué mu daal di yëngal bopp bi nee ma papa Ndiaga Niang moom ngeen di wax indi na ma ba biir këram ak jabaram Fatou Gueye ne dañ may jaay kër gi à cent trente millions mu ne ko ubbil ma ma dugg kër gi mu ne ko déedéet du ma la ci kër gi dugg dafa am ñu fi nekk fekk ñu ngi ci biir ñu ngi waaj waa ji HLM la dëkk jabaram xam la ne doon doon jàmm ak salaam nee na moom yoonam nekk ci problème bi loolu wax mais moo dugal doo jëkkër ji moo ko renseigné lépp nu mu ko dugalee mooy maanaam da ko ne jàppale ma ñii ma nangu seen kër ñu jaay ko jàpp ma am si sama xam nga xam nga leen bu baax jàppal ma leen ndekete waa ji mi ngi dundak moom di dund ak ñun te ñun xamuñu ko il a fallu sama benn copain ñuy toog di waxtaan ca fa waxu terrain rek mu cabaxal ma lu demee noonu. ñu yónni ay nit ñuy xool ñuy inspecté néeg yi. maanaam kooku bi jéey ji gisuñu ko gisuñu ko ba paa bi fii la ñëw xale yi narkaa songu ñu arrêté la nee la bu ne ko songu sama frère décédé na ñëwul sama tante ñëw. décédé ñëwul mu dem domaine Papa Ndiaga Niang ba paa bi décédé rek mu xam na ne fu mu nekk ni jugement jëri ji dañuy uti mu daw song ji euh, euh, titre foncier paa bi. démb bi ñëwee di leen génnee parce que nee nañu dem nañu ju war euh, jox juge bi jox nañu ordonnance ah boo xamante ne d'expulsion lay doon ñu dem référé sur difficulté la ñu wax ma jox ko sama avocat ñoo joxaat ñu référé sur difficulté ma joxaat ko sama avocat am na waa ñëw fii di laaj naa ma ñaata yeewoo ci kër gi ma ne ko loolu la ci diggante loolu. lu si sa yoon parce que huissier bi ma yónni ma ne ko huissier boo demee nga ne ko loolu bu mu ko lijjanti yoonam nekku ci waaw fii ay ay kër ay ay këru këru Abdou Karim Pouye la tey lewu ko jaay ko banque am na ay bagage yu parce que ay nervi la indi ñoo xam ne ay mbër lañu ils étaient contents bañ koy def parce que ay sàcc lañu huissier bi moo leen indi te huissier boobu euh, Rasoul Johnson la tudd moom moo yabal ay élément am service d'ordre bi moom macha allah macha allah macha allah waaw ñu daara loo xamante ne naka si lu noonu la dañ wax seen liggéey rafet na mhm. police HLM la commandant maa ngi koy gërëm commandant bi maa ngi koy gërëm ndaxte liggéeyam rafet na ah, parce que li tax apaisé na affaire bi ba incident amul ndaxte bu ko apaisé wul woon amaana ay dee day tëdd waaw mais li ñu bëgg nañ ñu delloo suñu kër fii la ñu tëdd. fii la boo yëpp fanaan man bërki dem si 5 heures du matin laa gëj a nelaw demuñu fenn dama ne euh, ñu tëdd ñu tëdd fii la ñu tëdd fii ba keroog yàlla nag ba yàlla di ñu jox loo xamante ne nag naka noonu la tant que ñu suñu kër ah ñun menacé wuñu ken mais xam nga suñu bakken bi ñoo ko moom ah fii ba lëndi bu réaction amul dara amul man maa koy jëkk jiite man maa koy jiite jënd essence taal sama bopp fii kumba ma ko topp topp te xam naa ne man su ma ko defee am na dinañ ma topp man parce que li tax femme bi liggéey na ma jëkkëram liggéey nañ ma bëgg maa rey mais yàllaa ma suturaal parce que man wetu salaatul fatiha laay def ma dama koy dóor mu mat sëkk def na lu nekk ci man mënul ci dara ci man parce que setul fii la ma xoj ba mun ma wax jabaram ak moom Fatou Gueye ak Papa Ndiaga Niang ñoo ma xoj jàpp sama baat jour boobu wallahi azim yuusu mi ngi ci dëgg yuusu ak sama mag bu ñuy wax kene seet ñoo daw jël taxi yuuxoo yi foo toog di dégg yuuxoo yi ñu naan la la ñu naan la mboor jàpp nañ ko jàpp nañ ko jàpp la ñu ne rek dañoo jàpp baat bi pour rey ma mu jàpp sama biir di metti ma bëgg wocc mënu ma wocc ma bëgg wax mënu maa wax li nga xamante ne dañ ma ne ay karo lañ ma soloon fii jour boobu dañ ci teg une semaine sama tante génn àdduna ah. kàddu yi mu di may wax waaw autorité yi laay woo 56 autorités yi laay woo autorité yi lii fin bii buñ ko bàyyee nii ëllëg ak si biir xamuñu lañ lay juri ji xam nga Sénégal rek moo am nga am doole dem neexal nit mu nangu sa kër fii rek la am Sénégal rek la am mais nag ça ne passe ñun fii la ñuy toog ba keroog bu ñuy fekk si waaw Macky Sall. ministre de la justice impôt et domaine te domaine bi dañu xoolaat seen doxalin Marème Faye Sall ñun waa waagu ñaay village numéro 218 mooy waa waagu ñaay Abdou Karim Pouy mooy njabootam ñu leen di woo ñu leen di woo waaw ñu ngi leen di woo ci woote bi nga xamante ne waa mbaaw yi ñëpp ñu ngi fi bu sax affaire de famille la ñu wax la de famille de famille affaire de bi moom fonk ci daf jaay doole ak ay avocat am. ak ay avocat am. du ma man bu leen neexee nañ ma plainte. ak ay avocat am. ñoom ci jëm boppam dafa dafa dafa doy waar.